gaa daal di xoolal lii xoolal lii bàyyi gis ngeen ah bàyyi gis ngeen gis sa yaa ngi nii ah ñu ngi nii si biir chambre xoolal gars dañuy piler di toor di gis ngeen fekk nañ fenêtre yi gis ngeen ah gars dañoo bëgg rey du gis ngeen Macky Sall gars ni muy joobee gis ngeen Macky Sall ni muy joobee ah. courant bi muy joobee ah. fii nit ba da koy wàcce gis ngeen lakk yi moo si kaw lale ah. gis ngeen a nekk yi gis ngeen gis ngeen ah. ba gis ngeen Macky Sall nu muy joobee du gis ngeen ah. li yëpp Macky Sall ah ah université Alioune fii la lépp dooree gis ngeen ah. gis ngeen mi ngi nii gis ngeen gis ngeen. gis ngeen chambre da doon tàkk baay moo doon ñu ndox yi du gis ngeen ah. yàq nañu matériel leer. non jëlal lii mu leer waay jëlal lii. lakk ak yu ñu suuf xool ak yu suuf ak bii ñu suuf gis nga lii seen bagage